Euh, mbokk yi jërë ngeen jëf ci fasante ko lëre gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan benn waxtu moo jot ci Medina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. Euh, li ci gën a fës bokk na ci wàllu feebaru euh, mbas mi Sénégal daanaka euh, juróomi nit ci ñi faatu diggante démb ak tey daal na koy rek waññi juróom-ñaari téeméer fukk ak ñaar ci ay nit daal di koy wàllante yu bees ak juróom fukk ak juróom-benn ay cas yu nekk service animation dinañ ci jukki yëf yi jéggi dayoon Sénégal daal nay rek romb sax fukki ci ay junni malade yu nekk traitement dinañ ci daal di nag addu ci wàllu ñàkku gi ba tey Sénégal mu ngi daal di amee ba fii dooreek léegi juróom juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay junni tegal juróomi téeméer ak euh, fukk ci ay nit dinañ ci jukki ci ndorteelu xibaar yi euh, lay euh, doon waaye nag jaxase li nga xam ne nag mooy vaccin yu wuute mbir moomu nag nekkul la ñu daal di nag maye dafay indi ay gàllankoor bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur programme élargi vaccination docteur Ousseynou Badiane dinañ ko daal di nag teewlu boobu jamono fële nga xam ne mooy diwaanu Njaareem jamono jile barab boobu bu ñuy wax euh, Gàppo ab na ab commune bu Patar la nekk am na ab manifesté bu mag bu fa daal di nag am askan wa la ko waral nag mooy daal di sàkk ñu daal di euh, bàyyi ki ñëw teg loxo nekk euh, coordonnateur bu collectif buy saytu wàllu nag suuf ak yorin wa ca boobule diwaan wàllu nawet gi 2021 bi lii di tiitaange gi mu ngi daal di nag gane si ñi nga xam ne ñoo fare ci dëkku kaw yi ndax gis nañ ne nag taw yi daan nay dakk ab diir syndicat cultivateur maraîcher yi yi ak ñi nga xam ne ñooy sàmmkat yi di daal di artu autorités yi eh, ci wàllu variété jiw yi nga xam ne nag moo war a mën a ànd ak li ni mel dinañ ci daal di àddu waa ANACIM ñu ngay daal di nag xalaat dalal xel yi jàpp ne guddik tey jàpp ëllëg ay taw yu bari mën na daal di nag wàdd ci yooyu lee diwaan dinañ ci àddu dinañ ci toftal yeneen i xibaar wu bés bi ñu daal di koy dalal laata ñuy dikk ci revue de presse bi ak Adja Ndeye Marème Ndiaye xibaar yi daal di buur asantur ma pare ci sottandikukaay bi faram-fàcce gi nees gis lay doon Adama euh, ci kàddu gi ñu door rek ko nag ak euh, xayma bés bi jëm ci wàllu Covid 19 bi feebaru mbas mi lu war a toll si juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñaar ci nit ñoo ko daal di am ñu bees euh, ci ñetti junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñetti test yi ñu daal di def juróomi nit daal nañu rek faatu itam ba tey diggante démb ak tey mooy résultat yi daal di bàyyi ko ci test Covid yi ñu daal di gis ne cas contact yi daanaka téeméer la ak fukk ak juróom-ñett cas transmission communautaire yi ñu dem ba ci juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak euh, ñeent ndakaaru Rufisque ak euh, Géejawaay gën caa nag bari la ndax euh, ñaari téeméer ak fukk ak juróom daal di nag am waaye itam Tëngéej am téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay cas Géejawaay daal nay amee ñeent fukk ak juróom yeneen nag ci ay barabu réew mi yëf yi sax daal na fay gane si Thiès fanweer ak juróom benn Touba fanweer ak benn Saint-Louis ñaar fukk ak benn Kaolack fukk ak juróom ñeent Diourbel Ziguinchor Podor Matam Mbour Kolda Louga ak Tivaouane daanaka amee nañu ay cas yu yees rek euh, fukk waaye ba desug tey jii gis nañ ne cas grave yi euh, wàññi nañ ci juróom fukk ak juróom benn yu nekk réanimation ba tax Sénégal gi yëpp bu ñu limee ñi nekk sous traitement war na toll ci fukki junni yu tegal ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci Sénégal gi yëpp ñi nga xam ne ñoo daal di nag vacciné wu toll nañ ci ñaari junni ni ki démb kon ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk total bi bu ñu xaymaa lépp bi yëf doo rek léegi di campagne vaccination bi mu toll ci juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróomi junni yu tegal juróomi téeméer ak fukk ci ay euh, nit vaccination bi ñu daal di ci nag wéy rawatina vaccin Johnson and Johnson bi ñu wane euh, daal rek ci ñi ko war rek euh, jël ñu bari ci sénégalais yi di xaarandi nag euh, ñu daal di jël seen ñaareelu nag euh, doos bu vaccin AstraZeneca waaye itam nekkul vaccin yi ñuy daal di nag jaxase wala daal di koy boole ndax li ni mel mën na indi yeneen i rëq-rëq loolu mooy leeralu docteur Ousseynou Badiane moom mi coordonnateur programme élargi vaccination ñu déglu ko ci jokkoom ak Adja Ndeye Marieme Ndiaye waaw li du lu ñu lu du lu ñu digle ndaxte ba fi toll ni amagul benn ay li ñuy wax ay données ci yi ci weccee vaccin yi donc organisation ma de la santé muy mbootaayu xeet yi saytu wér yaram ba fi mu nekk ni li ñu joxe comme ndigal mooy ne ku nekk vaccin bi nga jël première dose nga continuer ko ak deuxième dose moo tax fii Sénégal ñi nga xam ne jëloon nañu AstraZeneca dañoo war a xaar AstraZeneca bi ñëw ñu jël seen ñaareel dose et AstraZeneca boobu sax yaakaar a ne dina ñëw fii ak ci fan yu néew incha allah. léegi docteur ñi nga xam ne nag seen app dafa weesu maanaam ñi waroon jël seen ñaareelu dose vaccin su fekkente ne app boobu weesu na nan la ñu fas yéene def ndax dañ ciy dolliwaat beneen am déet. waaw boo gisee ci ci mbirum ñàkk app bi du uh, app uh, boo xam ne bu jotee rek da nga ko war a def ci saa si li am solo mooy app bi ñu la wax nga bañ koo def avant app boobu di jot mais su app bi xasee ba jot boo ci tegee ay fan wala ay semaine loolu wàññiwul dara. donc euh, te du tax tamit boo ñëwaatee ñu ñu reprendre vaccination maanaam ñi jëloon benn dose même soo toogaatee sa rendez-vous jot nga toog un mois door a ñëw boo ñëwee dañu lay tollantil sa deuxième dose mais kenn du commencé waat ñàkk yi ci première dose bi te loolu tamit amul benn euh, benn euh, jeexital ci li nga xam ne ni mooy ñàkk yi ngay ñàkk ak protection bi nga xam ne moom nga war a am Euh, ci la ñuy daal di nag euh, wax ba tey ak euh, étudiant vétérinaire yi nga xam ne dañ leen rek ay ñu daal di nag dugg ci niveau école yu vétérinaire yi loolo waral nag jamono ji defuñu wàllu examen première session mu nekk lu daal di nag bloqué mbir mi ci niveau ministère bi ñu dénk wàllu jëflante gi ak bitim réew di affaires étrangères bi nekk nag ci bopp yi li ni mel ndax ci dolli itam mandataire yu vaccinataire yooyu yëngu ci wàllu nag privé bi depuis ñetti at a ngi nii daanaka ñu ngi daal di wéy di sàkku la nga xam ne warloo nañ leen ko docteur Imam Thiam mooy président ordre des docteurs vétérinaires yu Sénégal ñu déglu ko. suñu doom yi nga xam ne dañu nekk ci université Cheikh Anta Diop nekk fa école inter état de sciences et médecine vétérinaire ñoom depuis démb dañ leen ne doo leen fii mën a def examen ndax seen réew dafa amele bor bu takku boo xam toll na ci huit cent millions waaye boor boobu tamit du boru tey rek mais bor la boo xam ne ni depuis deux mille vingt mu ngi fi fekkoon fi tamit yeneen i arrière donc mu mel ni suñu état bi joxul njàngu xale yi ci mbir moom surtout ci li ñuy wax santé animale. donc xale yi depuis démb ñoom ñu nekk ci njàqare xamuñu ci la lay ne xamuñu tamit mbir mi fan la sooxe fan la taxawee mais mu am loo xam ne tamit dañ koy njort mooy que ni c'est au niveau du ministère des affaires étrangères la am un blocage moo tax tey man en tant que président de l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal ñun dañu bokk ci kuréelu école bi parce que ci comité de pilotage bi dañ ci bokk te ñu am wàll tamit beneen wàll ci xale yi di jàng ndax ay futurs docteurs vétérinaires lañu donc dañ ciy taxaw jàppale leen ci loolu donc ñuy def donc un plaidoyer pour que xaalis boobu ñu mun ko fay xale yi mën a dellu ci seen sago dem jàngi def seen examen comme seen yeneen naatango mais ñuy wax benn mbir bi nga xam ne dafa am solo Sénégal tey dañuy jàpp ni dafa régressé dafa dellu gannaaw parce que école boobu tey bu taxawee ba am benn aura am benn rayonnement c'est parce que Sénégal def ci yàggoon na jàpp mais tey bu ñu tolloo ba nga xam ne suñu doom yi dañ leen di interdire examen parce que dafa am bor boo xam ni tey Sénégal mënu ko fay wala dama naan nangu ko fay loolu dafay nekk loo xam ni ñaaw na te rafetul te li ñu bëgg mooy xale yi dem dugg ci salle bi jàng comme seen i yeneen naatango def seen i examen beneen mbir mi nag mooy ñi nga xam ne ñooy topp ci euh, jur gi di leen aar di leen ñàkk at mu jot ñetti at a ngi ni kenn fayu leen te bor bi dina toll ci trois cent millions te fi may wax ak yéen nii ñoom ñu ngi ci terrain bi ñu ngi ñàkk te ba tey ñu ngi dig te nee ñu deux mille vingt deux la ñuy fay te ñooñu ñu ngi liggéey di jël personnel di fay seen i impôt di fay seen i et di doxal ñàkk bi na mu ware mais vraiment ñu toog xaar toll nañu foo xam ni il faut que état di jël ay responsabilités fay ñooñu nga xam ni c'est des sénégalais donc il faut que ñu delloo ñooñu seen ak ak seen i yelleef Sud Euh, ñu daal di dem kon village bu Gàppo ca commune bu Patar foofu mobilisation ba nga xam ne askan wi daal nañ koy rek def ne ñu Cheikh fay la ñu bëgg ñu daal di koy nag euh, libéré mooy coordonnateur euh, bu collectif défense du foncier maanaam suuf si ak yoren wi naka lañ koy daal di nag aare moom mooy coordonnateur ba moom nag ñu tegoon ko loxo la waral askan wa daal di manifester ngir ñu daal di koy nag bàyyi ñu jàll ci jokko jekk Adama Ndiaye Adama ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adama waaw ñu mel ni Cheikh Faye foofu dañ ko placé woon mandat dépôt ci àjjuma ji moo waral mobilisation boobu ngir ñu daal di koy bàyyi. waaw looloo waral sax askan wi nga xamante ne moo dëkk Gàppo ak tund wi nga xamante ne moo ko wër Sambek li nga xamante ne mooy eh, nguy yooyu yëpp dajaloo fi nga xamante ne mooy Gàppo ngir ñaan ñu bàyyi ki nga xamante ne mooy Cheikh Faye te jiite woon kuréel googu nga xamante ne mooy xeex lépp lu jëm ci saax saaxe suuf si nga xamante ne moom la ñuy def fii ci njaareem moom nag dañ ko placé woon su mandat de dépôt ajuma ji bi ñuy waajal julli ji te procureur bu de la république defoon ko ginnaaw bi nga xamante ne chef de service bu urbanisme bu njaareem di Ablaye Diouf def na ab plainte daa di koy kalaame lañu ñu tuumaaloon Cheikh fay nag moo di ne tabax ay kër ay néeg yu nga xamante ne amul autorisation de construire ak li nga xamante ne mooy permis d'occuper te loolu nee nañu juróom fukki kër ak ñaar ci tund woowu yépp loolu tabax nañu def ay étages te amuñ ko ñoom naal nee na li dañ ko singli ndax taxawaayam bi nga xamante ne moom lay def ci wàllu suuf si moo tax daal autorité yi mel ni jëm ci wàllu yi nga xamante ne mooy kadas ak Euh, autorité locale yeeg administrative yi daal di koy singli ba teg ko loxo ñoom nag nee nañu lii nag benn jéego la beneen jéego bi nag nee na buñ ko bàyyiwul ñoom dinañ delloo buum ca boy boy ba te bii yoon la ñu war a def daal duñ ko wax kenn dañ koy dànk fanaanal ba tax na sax tey jii imaam ak ñi nga xamante ne ay kilifa diine bokk ci tund woowu yépp ak askan wa dañoo màbboon mer ba fut ne daal la ñu bëgg daal moo di ne Cheikh Faye moom mu nga xamante ne yoon def koo teg loxo mu daal di koy teggi bu ko defee jàmm na ñooy way laa nee na fitna dina juddu diggante nga xamante ne mooy gàppoo Sambé ak tun wi nga xamante ne moo ko wër Adama Ndiaye fii ci Njaareem rajo Sud FM. jaajëfal di nag tab bi euh, ci lii di nag hivernage bi di wàllu euh, suuf ba tey ak taw yi ñoo gis ne jamono ji gox yu bari euh, ci wàllu nag mbéy mi ak fa ñuy faral di ko amale yëf yi daal na fay rek taw yi daal na fay rek gëj loolu nag syndicat cultivateurs ak maraîchers yu éleveurs yi bootu ci CSA daal nañ ci rek àddu yenn ci béykat daal di. ngi gis ne defaguñu sax seeni euh, jiw nag yu euh, jëkk ñu ngi ci nag euh, artu bu ko defee ñu daldi di nag xool naka lañ leen di gunge nag ci wàllu woowu ba ñàkkum taw yi du doon nag loraange dañ ciy teewlu kii di Ibou Thiam bokk ci kuréel gi ci jokkoom ak Adja Habsa Iliman woon jafe-jafe bi nga xam ne tey moom la am mooy ndox mi moo mat doyut ndox mi nag du président moo ko def yàlla moo ko def waaye président nag gouvernement dafay prévoir ab dund ëllëg ndax nawet bi fi mu toll jafe-jafe bu mag am na ndox manqué na lool lool lool lool lool te am na gàncax yoo xam ne ñu ngi dee am na ñoo xam ne jeexaguñ te nawet bi bu nekkee cent vingt jours la war a diire soixante dix jours fi mu ne moom la des gerte bi ñuy wax copp muy war a dund cent jours boo ko jiyee soixante dix dana sax dana màgg waaye baax kon nag sax du wéy màgg du mais baax day wéy ñuy xelal nguur gi di ko xelal président te di ko ko wax lan la mooy na respecté li nga xam ne tey ay norme la na suuraale baykat yi nga xam dañoo war a liggéey te réew mi peuple bi bay réew mi ñun ñoo war a bay ñu dundee kon nag ñu leen jafe-jafe mu ngi ñëw na xam ne jafe-jafe dana am te nawet bi du fépp lay mat du fépp lay baax comme du fépp ma du fépp lay baax kon nag nañ taxaw programme jiwu wu gaaw a ñor muy lu demee ni xaal ak kànja ak yeneen lu mën a du rek nañ ko programme indi ko jox ko baykat yi ci nga xamante ne fi ne jafe-jafe am na fa réew nag duñ ko yoree ci lenn lu la neex nga def lu la neex nga wax kon nag ñun ay baykat la yoo xam ne gis nañ jafe-jafe am na ci réew mi dañ toog wax ko balaa muy jot médecin après la mort ñun duñ ko mos a def kon nag na Macky Sall xam ne mooy njiitum réewum Sénégal moom lañ tànn moom lañ fi teg moom la ñuy xelal ne na xuuti dund programmer ko ci réew mi am na jafe goo yoo xamante ne ñewet mënta dem bañ góob sax du wéy màgg du wéy mais baax day wéy kon na ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah, ñu daal di nag eh, dem ci ANACIM ñu ngi daal di dalal xelu béykat yooyu jàpp na ci biir réew mi ñu ngi ciy xaarandi ay taw eh, guddik tey jàpp nag eh, ëllëg rawatina gox yi ci mel ni Tambacounda Koungheul Fatick ba jiwaanu nag Kaolack wax nañ ne itam ci njeextalu weer wi tendance boobu mën na daal di nag wéy taw yu bari yi Tidiane Camara nekk ingénieur prévisionniste ci ANACIM ñu déglu ko. waaw déjà ci guddi tey jii nii rek ñu ngi ñu ngi xaarandi ay taw ci gox yooyu goxu euh, Tamba Koungheul euh, jëm ba Fatick ak Kaolack waaye suba nag la la la probabilité yi gën a gën a kawe ci ci gox yooyu noonu nag ñi ñi nga xam euh, bu loolu weesoo nag semaine bi waaj ko nii jëm ci fin du mois bi am na am na am na benn épisode bu ñu xaar te am nañu yaakaar ni dina ànd ak euh, ndaxte loolu dina laal ko Fatick Kaolack ak euh, ñoom Koungheul tam ci fin du mois bi incha allah lañ jàpp ni dina bëri par contre buñ buñ bu tawee incha allah suba dañu nar a am benn arrêt suuf si dina xaw a wow pendant pendant ñu dugg ci ci début mois la ñuy xaaraat yeneen yeneen ni Euh, ñu daal di nag euh, wax jëmme ci euh, banqaas wala ba temps bu mujj bi nga xam ne élèves yi daal nañ koy rek am ngir daal di def seeni nag révision wàccaayu nag baccalauréat général bi ñoom nag ndongo yi ca lycée bu Kounoune daanaka ñu ngi daal di dund waxtu yu mujj yooyu ci stress nag bu metti même bu fekkee ne itam daan nay jeexal programme bi nekk itam di amal révision yi ndànk ndànk waaye itam jamono. jamono euh, daal di concentré wu bu baax a baax euh, perturbation yi ci daal di nag nay aju ak conseil yi nga xam ne daal na ci aju ñu leen koy jox euh, bokk na ci li nga xam ne daal moom la ñuy dund jamono ji def nañ ceeb gëstu ca Kounoune ñu ànd ceeg suñu reporter Josette Kali. juróomi fan moo tee ñu tàmbali épreuve yu baccalauréat yi waaye njaaxare mooy li gën a fës ci xar kanamu ndongo yi. instant bi moom mënoo toog te doo stressé parce que ñëpp yow la ñuy xool instant bi lan ngay def. instant yi loo mënti def leneen jàng rekk lañu lay wax instant yi kay stress moom noo def mu ñëw. ñu concentré wu lool di déglu bu baax a baax seen xarit bi nga xamante ni mu ngi yor ab craie nekk ca tableau ba di corriger yenn ci ay exercices yu philosophie. situation ci yile ndongowu terminal eld 2 noppalu weesu na daanaka révision yi moom la ñuy yendoo di ko fanaanoo fu ne la ñuy sàndi seen ay gët bépp matière la ñuy xool te du ñuy dax benn yoon wuti wàllu ci seeni jàngalekat. Ah, révision yi kay moom à chaque fois nga xalaat jàng bi rek nga dem ubbi kay boo toogee defoo dara rek nga dem ubbi kay instant kay amul heure fixe jàng rek. léeg ngeen jaaxle woo seen ay prof wala fi mu ne nii yéen dong ngay réviser. ah parfois. bu fekkee dafa am prof yu nekk ci côté cité bi nga xam ne soriwuñu mun nañ leen dem boo mais sinon ñu rek ñooy jàngal suñu bopp. man suñu nekkee fii école à 19h 20h dañuy ñëbe à la maison à 23h minuit maximum man damay tëdd voilà parfois ma tëdd à 21h je me réveille encore à 4h demi 5h pour réviser jusqu'à 7h 8h. comme d'habitude quoi pas de problème. waaye réeroo nañu ci kàddu ci noonee ñu amaleewul anticiper wu philosophie bu ñu xoolee diisaayu coefficient bu boobee matière. bon pas de problème parce que bon récemment loolu lañ def ci examen blanc yi donc xanaa ñi nga xam ne dañu njëkkoon def examen mais ñun nga xam c'est la fois donc pas de problème tam nañ ko ci examen blanc yi. loolu kay bizarre na ci ñun parce que buñ njëkkoon def buñ defoon philo bi ci bu njëkk ci bu teel mooy gën a yomb instant yi dina gën a métti ci ñun te dina gën a yokk stress bi tamit. waaw coefficient bi dafa élevé surtout boo ci amulee moyenne wala nga boole ko yeneen yi day gën a métti. ci njeexintalu yile révision. tegtal yi di bàyyeekoo fu ne du leen di yombalal mbir yi. bien sûr instant bi kay moom foo tourner rek bac bi sa va yaa ngi ci kawam. loolu rek ngay dégg ak yàlla baax na moo tax instant yi kay da ngay xalaat boo amulee rek ni fi nekk sa ginnaaw moo tax loo doo def leneen du dul jàng. ba tey wàllu njàng mi eh, ñàkkum saalu yu classe yu doy ca lycée eh, Diogoy Basile sengoor ba nekk ca Fimela eh, boobule barabu jàngukaay daanaka amul lu war a toll amul lu war a toll ñaar fukk juróom ci ay salle physique lu mooy ñaar fukk ak juróom-ñeenti classe pédagogique yi ak système bi nga xam ne daanaka dañ koy toxalante ñu gën koo xam ci système nomade classe yi nga xam ne dañ koy rekk weccante ci waxtu yi nga xam ne euh, méngoowul mbir moomee nag euh, moo waral proviseur bu lycée ba euh, di ci àddu di artu itam moom Souleymane Diouf mooy proviseur bu lycée bu Diogoy Basile Senghor bu Fimela ñu déglu ko Ngor Sarr. lycée Diogoy Basile Senghor de mooy lycée boo xam ne actuellement lycée lañ koy wax mais bu njëkk ba CM la woon ba ñu koy créé c'était en 1983 1998 lañ gis ne mën nañ ko transformer en lycée lycée baa ngi fi ba tey mu ngi nekk mais ci bâtiment yi nga xam ne ñoom ñoo fa jiitu woon ñoom ñoo fi nekk ba tey ci moment bi ñuy wax ak yéen ñi ñuy wax administration fukk ak ñett lañ professeurs yi jàngalekat yi nekk ñeent fukk ak juróom ñeent am na personnel ñoo xam ne ñoom ñooy toppatoo liise bi ñuy kaat élèves yi toll ci junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci élèves yi nag am na juróom mbenn téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñetti góor ci jigéen ñi juróom ñett fukk ak euh, juróom fukk ak benn élève yu jigéen donc ñu gis ne tendance bi jigéen ñi ñoom ñoo fi ëpp donc scolarisation des filles boobu ñu doon wax ci classe d'examen yi ñiy def baccalauréat juróom benn classe ñoom ñoo fi nekk ci ñu doon euh, ñetti classe terminal L2 ñaari classe terminal L benn classe terminal sd 2 terminal scientifique ci troisième ñiy def BFEM donc foofu am nañ fa ñeenti classe yoo xam ne war nañ mën a euh, defi BFEM ci kanam incha allah élèves yi ñoo ëpp salle de classe yi moo tax aussi foofu dañu am benn stratégie parce que dañu am ñaar fukki tabax ak juróom donc am na ñeenti classe yoo xam ne bu ñëpp taxawee du ñu am ci classe bu ñu dugg waaye dañuy jongle bu ñii di def éducation physique bu ñu demee ca terrain ba ñeneen ñi dañuy duggagum fii donc moo tax ñun soxla xam ne yaakaar nañ ne su peu de temps dinañ mën a am lycée bu moderne Sud FM ganu bés bi. Euh, ganu bés bi ba tey ci feebaru mbas mi xeex bi ñuy xeex Covid 19 boobu ministère jeunesse di woyal wàllu sensibilisation yi jëme ci ndaw yi ndax gis nañ ne ñoo gën a euh, bari ci barab yi nga xam ne moom la ñuy toppatoo ñi amee feebar bi mouvement euh, ndaw yi collectivité éducative yi yëpp ñu daal leen dugal ci mbir mi bu ko defee sensibilisation bi gën a mën a jàppandal secretaire général bu ministère jeunesse di Mor Khoudia Gueye am seq na ci waxtaan ak Adja Ndeye Mariam moo Khoudia Gueye maa ngi lay nuyu yow yaay secrétaire général ca ministère de la jeunesse ñu gis nag ne ndaw yi fu mu nekk nii ñoom ñoo ëpp ci ñi am mbas bi di Covid 19 ñoom ñoo ëpp ci ñu ñuy faj euh, ci centre de traitement des épidémies ñu bëggoon xam ndax ca ministère de la jeunesse am ngeen loo leen sóor ngir fexe ba gën a ñaax ndaw yi ngir ñu moytu feebar bi. waaw xam nga ministère de la jeunesse moom bu ngeen seetloo depuis appel bi ministre ma ministre euh, euh, lancé woon aux jeunes. Euh, c'était, je crois, le, le 14 ou le 16 euh, du mois de mars 2020. depuis lors ñun musuñu arrêté nag wax dëgg yàlla sens sensibilisation bi euh, musuñu arrêté di ñaax association yu mag yi mouvement de jeunesse yi vraiment ñu sóob seen loxo bu baax ci wàllu sensibilisation bi sensibilisation bi jëmale ko ci population en général mais jëmale ko aussi ci ndaw ñi su ngeen fàttali ko madame ministre doon wax ni comme euh, euh, jeunes yi ñoo nekk soixante cinq pour cent de la population jeunes yi war nañu nekk soixante cinq pour cent de la solution et boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla ministère de la jeunesse munul musul euh, taxaw même ci période yi nga xam ni sax dañ doon wax nii waaw pandémie bi mi ngi dem ak yooyu ministère de la jeunesse musul noppi di di di di gëm nii dañoo war a continuer sensibilisation bi xëy na sax feeñul trop bu baax mais suñu. Euh, suñu protocole sanitaire bi ñuy euh, appliqué ci activité de jeunesse nga xam ne ni euh, ministère de Euh, secrétariat du gouvernement ak ministère de la santé ñoom ñoo jàppale ministère pour ñu am euh, protocole euh, sanitaire boobu bi ñu koy def ci moment boobu ñëpp ñu ngi naan ah mais n'est-ce pas kii bi Covid bi mi ngi dem protocole sanitaire bi lu muy jëriñ ñu ne non non non protocole sanitaire bi dafa am solo ba léegi il faut que ñu am ko pour que activité de jeunesse bu ñu munti organiser ñu xam. Eh, yan mesure la ñu war a respecter pour que activité yooyu mën a eh, am donc wax dëgg yàlla ministère de la jeunesse musul jóg nag di eh, ñaax ndaw yi pour ñu dugal seen loxo bu baax ci wàllu sensibilisation bi am nga ministère de la jeunesse aussi am na collectivité éducative mooy colline de vacances patronage centre aérien yi nga xam ne dañ koy organiser chaque année te thème ren bi ñu ngi ko ñu ngi ko jagleel vraiment participation collective ci sensibilisation pour la la la COVID euh, euh, la la euh, pour lutter la COVID dix-neuf donc vraiment ministère de la jeunesse musul jóg nag ci euh, ñaax ndaw yi vraiment ñu taxaw ci di def seen wàll ci xeex. léegi ci vacances yi nga xam ne moom la ñu nekk nii ndax da ngeen di indiwaat li ñuy tuddee vacances citoyennes wante dangeen ngeen koy soppi mu nekk ay vacances yoo xam ne ndaw yi dañ ciy ñaax seen moromu ndaw yi ngir ñu moytandiku feebar bi ndax xalaat ngeen li ni mel wala boog ndax da ngeen am yeneen tëralin. waa xam nga euh, depuis un certain temps euh, la question de la citoyenneté activités ñu ciy def dañ koy étaler ci année yëpp. dañu yaakaar ni vacances rek nekkul moment bu nga xam ne bii ci la ñu war a proposer ndaw yi ay activités wala ci la ñu ñaax ñu mën ay activités euh, citoyennes donc ci euh, logique boobu am na activités yoo xam ne jot nañ ko mënee déjà ñu ngi defar nag benn programme d'éducation la citoyenneté bu mag boo xam ne bii acteurs yu bëri bëri bëri ñu ngi ci euh, ñu ngi ci biir mais programme boobu bëgguñu rek muy nekk ci vacances yi dañu bëgg a nekk ci année bi yëpp chaque année vraiment les douze mois. ñu mën a dérouler ay euh, ay activités euh, maintenant euh, pour ci weer yi di ñëw vraiment am na benn programme boo xam ne bii ñu ngi koy waaj a génne bu bokkul ak programme bale ma doon ma doon jëkk a wax ñu ngi koy waaj a génne nga nga xam ne ni dina permettre vraiment ñu nekk sur le terrain proposer ay activités yu bëree bëri bëri et sur l'étendue du territoire programme boobu ci fan yi rek incha allah dina génn te place bi nga xam ne bii ci la euh, ci la euh, en tout cas place bi ñu ci war a jox sensibilisation bi par rapport à la Covid place boobu dina nekk place bu yaatu compte tenu du fait actuellement loolu moom moo nekk. vraiment matière bu nga xam ne bi ci la ñu war a ci la ñu war a def suñu suñu force yëpp suñu énergie yëpp. ndax mun nañu xam léegi kon yan message ngeen di fësal euh, fas yéene kaa jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi. waaw xam nga euh, vaccination bi fan yële passé rek def naa war na toll ci ñaari semaine ministère de la jeunesse dajale woon na ay ndaw yu bëri ci service éducation pour la santé pour ñu waxtaan ci affaire ci affaire vaccination bi. Euh, loolu euh, message bi nga xam ne nii euh, moom la ministère vraiment du joxe mooy ndaw yi war nañu ñaax population yi ñu dem vacciné wu mais ñoom seen bopp aussi war nañu war nañu vacciné wu te ñun li ñu santi daal mooy jeunes yi ñu si bëri pare nañu pour pour vacciner wu dinañu continuer di leen di leen ñaax. pour wàll bi nga xam ne bi euh, donc am nañu ko ci ci vaccination bi en termes de sensibilisation mais aussi ñoom seen bopp ñu dem di vacciner wu véritablement ñu ñu continuer di di di wéy di def liggéey boobu pour que ñëpp mën a vacciner wu euh, wala ñu ñu ëpp mën a vacciner wu euh, pour que véritablement li ñu yaakaar ni vaccination boobu mun na ko def ci wàllu xeex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 showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. Wave moo leen di may seen revue de presse ak Wave sa xaalis yaay boroom dépôt ak retrait gratuit. fay say facture te duñ la ci teg beneen frais transfert fépp ci senegal 1 pour cent rek ngay fay maanaam junni boo yónnee fukki dërëm rek la lay dikkee Wave àndandoog askan wi ci kalpe bu yomb te woo di ci ànd ak UBA ak Ecobank moo leen di may seen revue de presse boisson punch ak ndox mu sell mii di waalo d DSL plomberie équipement et sanitaire établissement Mbaye et frères Sénégal premier équipement et machine ak seen kalpe Wave ñoo leen di may seen revue de presse Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk yi déglu dalee nag jàmm l'opposition bi ma ngay wéy di ŋàññ nag décision bi nga xam ne moom le conseil constitutionnel daal di jël euh, jëmale nag ci recours ga ñu ko jébbaloon keroog ba ñu daal di voté ci ñaar fukki fan ak juróom euh, ci weeru juin fële nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ab loi boo xam ne rek day indi coppite euh, ci wàllu code pénal bi ak code de procédure pénale autolikaay bii di si comité di action pour la citoyenneté et le travail ñoom daal dinañuy xamle ne décision bii nga xam ne moom le conseil constitutionnel daal di jël ànduñu si tey ànduñu si ëllëg ba léegi ci biir julikaay bii di Sud Quotidien ngir indi ay leeral jëmale ko nag ci wàll gi ni mel julikaay boobu daal dinay seq waxtaan ak professeur Ngouda Mboup moom jàngalekat la ci wàllu droit public ci faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh de Dakar moom mu daal di gis nag ne conseil constitutionnel juróom-ñaari a nekk moom ñeent dong moom moo fa nekk loolu sax moom moo tax ba bépp décision boo xam ne daal dinañu koy jël jaarul ci yoon ndaxte ñoom dañoo jalgati daal lépp lu jublu ci koy seen ci biir culekaay bii di direct news ndaxte moom ma ngay fësal poñ yi nga xam ne moom mooy tax tey jii décision bi conseil constitutionnel ñu war ko jël teg ko fee ci biir culekaay bii di vox populi lu weesu Abdoul Mbaye Birahim Seck moom it daal dinay fësal ay kàddoom jëmale ko ci décision bi di jël mu gis nag ne nekk na ab décision boo xam ne jaarul yoon rax ci dolli ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk na ba mu amee mu gis nag ne li ni mel la ñu waroon na njëkk jukki laata nag ñuy wax jëmale ko ci wàllu décision bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel daal di jël décision boo xam ne moom it daal di nay ne àndu ci tey àndu ci ëllëg wante dafa mel ni ci biir culikaay bii di Sud Quotidien waa APR ñoom daal di l'opposition bi te tey ji ñuy ŋàññ décision bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel daal di jël task force républicaine daal di gis ne conseil constitutionnel liggéey ba doon xaar ci ñoom dong la ñu di def l'opposition bi ñoom dafa mel ni ne xamatuñu lan wax xamatuñu na jëfee kon tey ji képp koo xam ne da ngay ŋàññ doxalin bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel daal di doxalee ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir APR daal di nañuy a jiite LD Debout eh, ci biir culikaay bi di l'info moom muy joxoñ baaraamu tuuma Macky Sall ndaxte la mu gëm ne moom moo wasaare mbas bi di Covid 19 fii ci même réew ak tournée yam fa doon faral di amal rax ci li na mu yoree lépp lu jublu ci wàllu xeex ga ñuy xeex mbas bi am na daal ay gàllankoor yu bëri yu ci nekk moom moomu di Pape kon ci waxtaan gi mu seq ak suñu natango yi daal dinay ñëwaat ci yeneen poñ yoo xam ne mi ngi jublu eh, ci mbooloo bi ñuy xaar ci wàllu l'opposition bi ci wàllu troisième mandat bi ak bi di Covid 19 xeex ga ñuy xeex jëmale ko nag ci wàllu mbas boobu culikaay bi di laas mi ngi ñee xamal ne kii di Abdoulaye Diouf sax tey jii la ciy gën xar tànku tubéyam démb moom sax mi ngi doon xamal ne am na vaccin yu bees yoo xam ne ñëw na ñu tuddee ko Johnson Johnson te it ma ngay woo ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ndaw yi ngir ñu dem ñàkku ji ndaxte yow culikaay bi di l'observateur mi ngi ñee xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu docteur Alioune Badara Ly nekk médecin épidémiologiste te it mu daal di ñi nga xam ne tey jii nag ñoom ñoo ëpp ci biir CTE yi di bërëb yi nga xam ne dañ fay faj ñi am mbas bi di covid 19 ñi si ëpp daal ay ndaw lañu yu am ci lu tolloog fukki at ak juróom jàpp ñeent fukki ak juróom loolu moom moo tax ba joriñ gii di Abdoulaye Diouf Sarr di woon ndaw yi nag ngir ñu gën a fagaru jëmale ko ci wàllu mbas bi te it ñu dem ñàqu ji ñoom ñëpp moom moom di Abdoulaye Diouf Sarr laas yéene kaay moo ñuy xamal ne daal di nay weddi ñiy wax daal ne am na ay CTE yoo xam ne amuñu woon oxygène moom mu ci naaj xamle ne ci li ñuy tàmbalee di xeex mbas bi di covid 19 ba léegi amul benn bërëb boo xam ne dañu fay fajee ñi am mbas bi di covid 19 te amul woon oxygène ñu jeexale ko ak culikay bi di la soleil tey daal di def ab gëstu jëmale ko ci mbéyum ndaamaraas fële nga xam ne moom mooy ca bët saalumu réew mi ñoom ñu daal di gis ne ca Casamance rawatina nag ca Goudomp foofu moom ñi yëngatu ci wàllu mbéy mi bëri nañu te it ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di jënd li nga xam ne moom mooy ci ñu ci mel ni ay indien ay vietnamien ak tamit ay euh, chinois ñoom de dugal nañu seen loxo bu baax a baax ci wàllu euh, mbay moomu lool sax moom moo tax ba ñu siy yëngatu yëpp euh, te ñu nekk ca Casamance rawatina nag foofu nga xam ne moom mooy ca département doom Goudomp ñoom ña ngay méngale naamaras ak wurus lii moo nekkoon mbokk jullikat ci li gën a fës ci biir yi ñu leen di ñaanaan njeexte lu bës ak jàmm.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 takk woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. Wave moo leen di may seen revue de presse ak Wave sa xaalis yaay boroom.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 d DSL plomberie équipement et sanitaire établissement Mbaye et frères XPEM Sénégal premier équipement et machine ak seen kalpe Wave ñoo leen doon may seen revue de presse Adama John Euh, mbokkee xarit yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi rédaction bi dina dellu si xibaaru xibaaru san si juróomi waxtu ak juróom benn waxtu ñaari waxtu xibaar yi ci tënk jaajëfal Adja Ndeye Marème Ndiaye ci revue de presse bi jaajafal Assane Thioune mi fare woon ci sottandikukaay bi mbokk xarit yi ñu déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm